Il ay parcelles yu bari biir Tëngéej maye fi ay terrain yu bari biir série A B C ba série G euh, malheureusement si série série G tey jii moom ci ay problème bi mu ko ay nit ay nitam a am jot nga il fallait juste faire les frais donc de bornage nga dem au niveau donc des impôts et domaines donc pour nga régulariser sa parcelle nga am sa parcelle. et ñun ñooñu tey def nañu seen devoir dem nañu impôts et domaine def nañu seen frais de bornage bi ñu demee tamit seen tour ñoom seen tour yi nga xamante ni moom la Mbaye Jacques mayoon ñoom moom boo leen demee tey jii nii moom ngeen di fekk foofu. donc mi depuis 1996 la loolu donc jamono di dox aussi ba ñu ñëw ba plus d'une décennie ëpp na ay fukki at ak lu teg famille Masseké Dieng doogu ñu dugg donc ci ñi koy wolof di tuddee ci français tuddee ci danse bi maanaam di réclamer ay partie de ce site là alors que nous trouvons vraiment aberrant quand même que depuis toutes ces que at yooyu yëpp jàll defu ko bi mu ko defee moom Massak famille ak Dieng boobu jël Ousmane Ndiaye ku ñuy wax Ousmane Ndiaye ñu def ko mandataire maanaam pour mu toppatoo en tout cas seen dossier boobu ñu soxla au niveau de la CDG mooy maanaam li ñuy uur si CDG que lii ñoom ñoom ñoo ko moom ay famille Masseck Dieng ay sëtam wala ay euh, en tout cas ay doom ah lignée am ñoom moom donc terrain yooyu bi ñu ko def effectivement ñu jël Ousmane Ndiaye boobu nekk seen mandataire donc ñu dem ba ci biir tamit malheureusement kooku us ñu jëloon muy Ousmane Ndiaye déggoo wuñu si ay kàddu parce que peut-être dafa bëggoon yeneen kii ak yooyu ñoom ñu def seen lettre adressé ko domaine ne ñëw Ousmane Ndiaye nekkatul seen mandataire donc je crois que depuis boo depuis bobu nak ku jàng droit ak ku jangul yëpp war nga mën xamni kon nek lo nekkaloo suñu mandataire donc waroto mën intervenir donc ci suñu tour donc ci site bobu terewul nak mu def lolu inter di intervenir ci site bi malgré cela parce que amatu fi woon 23 parce que ñooñu nek weddi nañu ko nekkatul seen mandataire ci la commencé di jël nak ay terrain jambour hein ah, diko joxé par ci par là et que nak ñooñu mu joxé ay seen terrain ñom tay ñu ngi ci association bi ñu nek ni tay te xam nañu leen xam nañu ñan la donc li ngeen di wax nii doo xamante ni ñun inventé nañu ko mais tey avec euh, la commission communication ak le président d'organisation ah ñoom peut-être dañu si revenir si loolu am nañu tous les dossiers yi nga xamante ni tey moom moom di Ousmane Ndiaye dafa jël terrain jàmbur yooyu jaay ko ba ba am na sax ñoo xam ni ñi ñu ko jaay ñi ñu ko jaay tabax nañ si donc ñooñu tey ñu ngi fii xamuñu ni ñuy def xamuñu lu ñuy euh, tabaxee seen kër parce que tabax nañ ko bi ñu ko xamee ñu station bi effectivement euh, am beneen station bu fi nekkoon boobu temps ah donc historique la quand bi il faut que ñu kii ko muy kazek ñun ñëpp d'ailleurs ñu si bëri ñu nekk ñu fi woon hein, peut être on a à d'autres occupations mais bi ñu ñëwee intégré di dégg ne am na fi station on a dit que ñu laaj station bi ñal la et effectivement bi ñu leen laajee ñan la ñu xam ne ñi ñoo fi nekk et à notre grande surprise ñu ñu ñu woo leen réunion télé woo leen réunion fi d'ailleurs fii et en tout cas def ngeen association mais ñun ñu association bi lan la nous ce qu'on veut c'est régler le problème de la série G waaw série G euh, c'est un problème mooy que ni terrain ñu koy tabax soko ko simmi jël na fi ay terrain fayul seen borom dégg nga tali ajurut bi tali bi ngeen gis ni bi ngeen di ñëw ni amna impacté parce que terrain fa nekkoon ay terrain fa nekkoon Ageroute donc ñoo le tali bi nous ñu dañ leen impacté ñoo tamit ba léegi kenn indemnisé wu leen donc pour tous ces problèmes nous, on veut que cela soit réglé on n'est pas des membres du bureau mais ce qu'on veut c'est qu'on fasse une assemblée générale euh, régulière euh, en tout cas euh, ordinaire parce que cela fait plus d'une décennie ëpp de 10 ans ëpp de 10 ans une assemblée générale ordinaire dara donc je crois que lolu li wax c'était pas quand même lo xamanteni ni ko depuis lors defuñu assemblée générale nous tamit réglé un problème donc à la grande majorité ñi fi la population parce que nous savons que nous la grande majorité aussi ñi nga nous sommes ay attributaires aussi nous ah, ñu l'Assemblée assemblée générale Nous, comme que defuñu assemblée générale ñu woote assemblée générale constitutive nommé donc un nouveau bureau Le bureau boobu tey en face ci est par rapport au problème de la chirurgie